cirë ngeen jëf kilifa diine yi ñuy sàllaw la ak di leen ñàkk teggin ci réew mi ñu nañu moo di sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des mourides keroog samedi ci cérémonie officielle bu màggalu Kazu Rajab gi fa xam le ne politiciens yi ak ni nga xamante ji noonu ñuy doxalee nañu xam ne kilifa diine yi ñoo leen ëppale ci réew mi li ñuy xëccoo di yëf àdduna ba tax askan wi di féewaloo loolee nañu xam ne moomuñu réew mi mu ne léegi nit ñi dem nañu ba dañuy ragal li ñuy ragal ragal la ñu xamul lan la ragal la wax ngir bañ ku la ca wax dara te loo wax ka la cay wax dara tegu ko fenn lu dul ci intérêt boppam ni ko Cheikh Bass Abdou Khadre ñaawlo l'observateur ne nañu noonee la ko sëriñ Abib Si moom sëriñ Abdoul Aziz Si Dabax ñaawlo ci cérémonie officielle bu gàmmuk Jagsaaw gi nee na mbir jéggi na dayo ñoo ngi seetaan aka bay bayet loo xam ne bu màggee du jur jàmm dem nañu léegi ba benn kilifa diine ñemetut a wax ci mbooloo ndax bañ ko ko ñàkk teggin te ñi koy def bàyyi lu ñu ko kenn ca Medina Baye dégg nañu Cheikh Khouraychi Niass moom El Hadji Ibrahima Niass muy ñaawlu song gi nit ñi jugtee léegi jëmee ko ci kilifa diine yi te li ko jiitu yéenekaay bi nee nañu xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Niass moo njëkk a yëkkati kàddoom di ñaawlu ak a naqarlu ni ñuy saaga ak a ñàkkee teggini kilifa diine yi bés bi le jour nañu dëkk bi di Touba am na lu ko mitti lool ca la fa xewoon keroog ba fa Ousmane Sonko jaare Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ay kàddoom ci yéenekaay bi muy xamle ne Touba dëkkub Serigne Touba la bopp ñépp ko war a wormaal duñu nangu kenn di ko yàq te loolee jaral nañu bakkan ko boole ci kit di yedd ña fa doon def fi manifester ba salfaañi dëkk ba dëkk beneen mu di géejawaay l'observateur ne nañu waa PUR di parti pour l'unité et rassemblement fa la gonte woon démb ab meeting ngir doon màggal ñaar fukki ak juróom yi nga xam ne parti bi am na ko Vox Populi ne ca ndaje moomee fa la Ousmane Sonko leerale li tax keroog waa police toj otom génnee ko dugal ko ci seen fourgon blindé bi yóbbu ko ba këram Ousmane Sonko nee ne li tax police yi doxale new ne moo di dañ doon bañ bi bu ci Macky Sall laalee kenn askan wi ca pale ko ñu génn fa dem ci libération mi ñuy wax ne moom Ousmane Sonko am na keneen ci waa këram yi ku ñu jàppati Abdoulaye Thomas Faye la chargé de communication bu parti Pastef ca Kaffrine tuumay woon nit ñi ci fitna di appel à l'insurrection loole la ñu ko jàppee ni ñu ko jàppee ca Podor ñoom waa parti Pastef bu dakkul du jur jàmm ci waa kër Macky Sall yi yëral xët mu njëkk Walf Quotidien yéen kay bi ne nañu ginnaaw lu ëpp ñetti millions ñuy dajale woon moo di dugg ca Fuuta dajale askan wi muy mag di ndaw di góor di jigéen wax ak ñoom ngir ñu waajal élection présidentielle yi 2024 yi Walf bind ne Pastef mi lawal ay banqaasam ca Île à Morphil ñaagis ga ca Casamance libération ne nañu foofee toj na mokk na rumbax princesse de ñaagis Victorine Ndeye maire bu ñaagis doon ministre microfinance yéene bi nee nañu moo fa woote woon ab meeting àndoon ci nag ak leader Benno Bokk Yaakaar yi ca diiwaan ci kilifa ya fa teewoon yéenekaay bi nee nañu xamle na fa ne Victorine Ndeye léegi ñun jàppee nañu ko suñu beneen Aline Sitoé Diatta borom parti RV dëgg moo wóor di Pape Modou Fall Tribune nee nañu moom ma nga woon keroog dimanche ci diwaanu Kaolack ab conférence publique la fa woote woon ngir doon fa fàttali askan wi ak diwaan li président Macky Sall liggéey ci Sénégal moom directeur emploi yéenekaay bi nee nañu jox na fay jeunesse bi message bu fort a fort jëm ci ñu wormal kilifa diine yi ci réew mi tegal na ndaw yi pexe yi gi teg di programme xëy ndaw ñi ngir askan wi rawatina jeunesse bi mën a am liggéey ci yëngu yi am ci réew mi ci week-end l'observateur mi ngi ñu cey wax journée d'excellence bi amoon ca Nioro keroog samedi la woon ci teewaayu ministre finance ak budget di Mamadou Moustapha Ba moo fa jël kàddu gi ñaawlu fa réseaux sociaux yi ak ni ñu tàmbalee sànq xale yi xale yi gën a ci njàng mi atum 2022 bi nee nañu moom la IEF ak conseil départemental bu Nioro tànnoon ci ñoom lu mat téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn doon leen sargal ak neexal ngir gën dooleel santé bi nekk ci giraw te boobee ba léegi dégguñu société civile bi ñu wax ji naka noonu it way politique yi pat patiral googee ci am yéenekaay bi nee nañu moo jaaxal lu bari beneenub laaj bu sampe ci beneenub yéenekaay moo di ci la Tribune lu aju ci rapport bi fi Cour des comptes siiwaloon mu jëm ci niñ doon doxalee xaalis bu fond force Covid 19 bi am ñu ci joxar bi baaraamub tuuma ñooñee lu journal bi laaj ana fan la ñu toll ak ñoom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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps